benn aspect bi ñu doon yëkkati léegi nii bokk na mm. ci lu ma tiital loolu vraiment mm-hmm. parce que réew mi suñu sañoon euh, dal jàmm rek moo fi am tout à fait euh, te mbiru pas-pas dafa sori trop ci doomu aadama mm-hmm. lu sensible la lu sensible c'est-à-dire cette question là euh, waxuma état bi mais population bi yëpp ñoo ci war a impliqué mm-hmm. ñu bàyyente cër gis nga sinon bu dul lool rek ça peut dégénérer te boo xisee dégénérer c'est fini kenn ku ci nekk jàpp nga ni dëgg nga taxaw yow yaa am dëgg. gis nga loolu mën na dem ci situation yoo xam si on ne le souhaite pas. Mhm. réew mi jàmm lañ bëgg nag vraiment. dal dal lañ bëgg. Mhm. le but des religions yi tamit du woon loolu. Mhm. du woon euh, def sens dessus dessous suuf si. nit ñi di tour direct ak yooyu donc vraiment c'est c'est pas ça. tout à fait ñoo ngi invité ñëpp à plus de retenue. kenn ku ci nekk la nga nekk yaakaar naa ni war nga ci xam suffisamment lu baax loo war man Euh, promouvoir euh, yaatal ko woo ci nit ñi boo ak dund ko aussi daal. Mhm. ak dund ko. Mhm. souvent man damay wax sama mbokk yi ni leen man dama am benn jafe-jafe parce que dafa mel ni bokkuñu dégg-dégg. Mhm. gis nga <clears throat> boo waxee dañ naan léegi noonu nañuy fàttalante nañuy fàttali. wa zakkir fa inna zikraa tanfa'ul mu'minin mais fàttali googu alxuraan lan la ci njëkk bala ngaa fàttali kenn fàttali sa bopp ba pare. wazkur rabbaka fi nafsika tadarruhan wa xiifatan wa dunal jahli min al xawli bil xuduwi wala saali wala takun min al xaafilin xoola fi ay bi daanoo bul bokk ci ñi sàggan parce que yaakaar ni nit ñi nga war a fàttali leen eh, yàlla nee na déedéet fàttalil d'abord sa bopp la wax ba pare mm-hmm. bala ngaa dégle càngaay non da ngay sangu ba pare la wax mm-hmm. alxuraan nee na bala nga fàttali nit ñi naan leen yàlla yàlla mm-hmm. fàttalil yow sa borom sa bopp boromam bi ko moom d'abord pare wazkur rabbaka fi nafsika waaw loolu mooy lu am solo